san Sa Thiès a ngi noonu Père Lirou a ngi noonu tey Père Lirou costume Lamine tey Père Lirou costume la laal kos la laal kay waaw. Oh, Lirou kay mooy loolu. saa ngi noonu naka mu naka yëngu yi. sant yàlla ba jëm ci woon alhamdulilah. gis na. waaw yàlla baax na ñoo far ñëpp. waaw ngi sant yàlla baax pare nañ pour ñëpp. na pour ñëpp. na pour ngi noonu xalil xalil Sa Thiès jóg na def na 100 mètres xalil xalil Sa Thiès def na 100 mètres bu dëgër xalil Sa Thiès def na 100 mètres bu dëgër mais Sa da ngaa dugg def 100 mètres. le vainqueur de Reug Reug dégg nga ko mi ngi noonu moom Sa Thiès Sa Thiès a ngi noonu Sokho ànd ak Père Lirou démb Xaadim Njaay moo defoon costume tey Père Lirou moo def costume saan ndeysaan mu ngi noonu moom Sa Thiès gis nga ko saa ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi koy tàccu le vainqueur de mu ngi noonu moom Sa Thiès saan tey digganteem ak Bombardier nee na la ak Bombardier lamb du ko tax moom Sa Thiès saa digganteem ak Bombardier lamb du saan saa ngi jaar baax baax baax di sant yàlla baax merci merci jërëjëf baal nañ ci booti waaw ñëpp benn lañu mii ndigalo mii adversaire mii bëri ñëpp suñu nit lañu mais nag nit ki bokk rek nga mën a gunge ci yi dëgg yàlla di ko ñaana aussi yàlla may ko ndam di ñaana ñëpp senegal na jàmm yàgg daal. li ci sama kanam rek fa laay taxawee ah aw ma leen may réglage sama ginnaaw. bàyyiwuma kenn. Bombardier Gris Bordeaux Tapha Tine ñëpp ku ci amul combat nag laa ci gën a sawar mais ñi ci amagul Bombardier day amagul combat. waaw moom Tapha Tine ñoo amagul combat. mais Bombardier yow la tànn. non dama ne ñoom ñoo amagul pare naa pour yow yow. pare naa pour grand non non pare naa pour poule de grand yëpp. mais parewu ma pour di bëreeg ñoo xamante ne dañoo jël avance. xaar jëmale suba. waaw dëgg yàlla. avance ngay si moo ma gën a quoi pour nga mën a teel a bëri aussi. voilà